jaajëfal nañ leen yéen ñi ñu topp suñu sit bii di Buzz SN dañuy ñëwaat ak yéen ci seen écho du jour ñu doore ko ak incident bi nga xamante ne si am na foofee nga xamante ne moo di ca Walfajiri maanaam tàkk-tàkk loo xamante ne si kon am na fa euh, foofee ca euh, bërëbu liggéeyukaay boobee nga xamante ne si day yëngatu ci euh, tasum xibaar ginnaaw bi nga xamante ne si nag am na loolee nga xamante ne si moo di tàkk-tàkk loolee nag boobee sappoor nag ñëw na fa jëm a jaamaarloog li nga xamante ne si kon moo di safara si nag waaye nag daal dafa bay nañ ci seen waar bu baax ba arrêté li nga xamante ne si moo di lakk ga niki foofee nga xamante xamante ne kon moo di ca euh, walfu euh, TV ñu gën koo xam ci euh, walf fajiri moom nag seen bureau principal bi daal moo doon takk nag loolee nag di image yi nga xamante ne si moo ngi circuler ci réseaux sociaux yi nag ñu bari nag xëyee ko nag muy tiis woo xamante ne si kon am na ci li nga xamante ne si moo di ca bërëbu tasukaay xibaar boobe nga xamante ne si moo di walf fajiri te ko jiite nag di Cheikh Niass mi nga xamante ne si kon doom la ci Sidi Lamine Niass loolee nag ñu bari nag ñi ci masawu ndax kat bu ñu xoolee li nga xamante ni kon moo di torof torof yi nga xamante ni si génn nañ ko ci weer yi ñu jàll ah, loolee nag lii di kaddaraat seen kaw ñëpp nag di ko ah, métti xam na ne ah, bërëbu taskatu xibaar gi di wal fajiri nag mooy télé bi nga xamante ne si moom la ñu ëpp li ñu suspendre diggante 2021 ba 2024 ndax kat daal mënuñoo dugg sax diggante boobu at moo xamante ne si tëjuñu télé bi maanaam coupé ñaari yoon ci at mi wala ñetti yoon bari nag doon ko naqarlu nag tey ji nag yàlla di kàtt ko nangu ndogalam euh, seen bureau boobee daal doon tàkk nag di bureau principal ba nga xamante ni si kon euh, moo yor euh, bërëbu liggéeyukaay boobee daal tàkk jëppët nag waaye nag li nga xamante ni si daal moo fa am muy ay yàqu-yàqu yoo xamante si nag am na fa génneegul nag benn bilan ne nag lii moo fa yàqu wala nag lii moo fi jëlee nag kookee nag li nga xamante ni si daal moo di kon Cheikh Ba Cheikh Niass daal kon daal génneegul nag defagun benn déclaration ci li nga xamante ni yàqule nañ ko ca seen tàkk-tàkk loolee nga xamante ne si am na ca biir télé ba wala kon kon nag biir daal euh, liggéey seen bërëbu liggéeykaay boobee nag di kon euh, bureau principal bi daal moo takk kon gis na ngeen image yooyu comme ni ngeen ko gisee ci euh, ki nga xamante ne si ko moo di ci écran bi noonu rek la demee di ak takk-takk gu foofe ca Walfu TV ba tey agression yi di gën a bari ci li nga xamante ne si kon moo di ci ñi am baat ci réew mi maanaam kon ñi siiw lool ci réewum Sénégal ki nga xamante ne si bokkoon na ci Zéry Virginie di tudd di wuyoo ci turu di wuyoo ci turu Kiné njaay moom mii nag euh, mu mel ne kon daal dafa publier ci pas Facebook am ne nag euh, dañ ko cambriolé euh, film ba nag di daw foofee nga xamante ne si kon daal moo di ca li nga xamante ne si moo di ca pas Facebook am nee na nag li nga xamante ne daal moo ko am nag moo fa am nag naqari na ko lool ginnaaw bi nga xamante ne si kon am na coow ki nga xamante ne si kon moo di boss des négri di Adamo ginnaaw boobee nag bi nga xamante ne si kon jëndoon na benn oto ginnaaw ba nag mu ubbi bitik bu mag nag coow li nag gën a bari tey jii nag li mu publier daal moo di benn cambriolage boo xamante ne si moom moo di Kiné Ndiaye kon daal dañ koo cambriolé foofee nga xamante ne si li nga xamante ne si moo di ab ah, ay téléphone ak li nga si moo di ab sac ba nag na nag na li nga xamante ne si moo ki nga xamante ne si moo ko def nag jàpp na kon moom mi xam na ko ah, ba na nag mu am fi yëkkatu kon dugg ci biir kër gi nag def ko li nga xamante ne si kon moo di jëf joojee euh, jël li nga xamante ne si moo di alalam ak téléphone yi nga xamante si euh, euh, moo di insécurité bi nga si am na ci te bari na ci li nga xamante ne si moo di ci réew mi ba tax na daal kon mi ngi woo ñi nga xamante ne si kon ñoo yor pouvoir bi yor sécurité réew mi waaye nag di woo mi ñi nga xamante ne si daal ñoo yor sécurité sénégalais yi ñëpp rek ñu taxawaat bu baax a baax a baax ndax kat agression yi seetlu kon ni kii daal eh, weer yi daal moom bari na lool jëmee ko ci ñi nga xamante ne si nag dañoo siiw lool ci eh, réewum eh, Sénégal di kaddu yi ki nga xamante ne si moo di Kiné Ndiaye bokkoon ci série bii di Versini ba tey kaddu yi nga xamante ne si kon jëlee nañ ko ci ñii di waa Cour des ci rapport yi nga xamante ne si kon doon nañ ko génnee ginnaaw bi nga xamante ne si génnee nañ rapport 2022 nag ñu ñëw ci deux rapport yi nga xamante ne ci amoon na ci 2023 bi waaye nag ñi ñu njëkk a fësal di ñaar ñi di ki nga xamante ne si euh, moo di euh, ki nga may Pape euh, Malick Ndour ak ki nga xamante ne si kon moo di daal kii di Mame Mbaye Niang nee nañu daal nag ñoom daal bokk nañ ci ñu ñu topp ci rapport yi nga xamante ne si kon génn na nag ki ko génnee kon di waa Cour des comptes nag jox nañ leen digal la nag kon daal nee nañu danañu wëyal li nga xamante ne si moo di seen liggéey boobee waree nag waaye rapport daal kon jàpp na kii di Pape Malick Ndour ak ki nga xamante ne si kon daal moo di kii di Mame Mbaye ci ginnaaw bi nga xamante ne si kon daal rapport yooyu yi ñu ngi koy wëyal di eh, di ko eh, publier fépp ci eh, réseaux sociaux yi ñi nga xamante nag ñoo def liggéey boobu daal nee nañu nag des nañu bare bare bare ñoo xamante i rapport nag bu ñu ko génne daal jàpp nañ ne loxo daal dana dem gémmiñ ci yoo xamante ne ñu ngi ci téye bu baax a baax a baax ñoom ñii di waa Cour des comptes nag ñe nañu daal ba tey rapport yi daal dana wëy di ko diñ ko publier comme ni ko jëwriñ ñi bëggee nag di président de république son excellence digalee daal nee na danañ ko defee noonee def ko tamit ni nga xamante ne si noonu la waree ak ñoom ba tax na daal kon rapport yi daal mi ngi wéy di génn tey nag ki nga xamante ne si daal nañ seen kaw daal moo di kon euh, Mame Mbaye si moo di euh, Pape Malick Ndour waaye nag ki nga xamante ne si nag euh, moom la ñu gën a ciblé ci li nga xamante ne moo di rapport boobee daal di kii di Mame ci rapport Prodac bi nga xamante ne kon daal juróon na coow lu bare bare bari ci atum 2023 bi nga xamante ne génn nag ginnaaw bi nga xamante xamante ne si kon euh, génnoon na di wax ne rapport am na bam ñax ko mu ne waat rapport euh, ko euh, tax na nag kon bii di rapport bi kon génne na ko daal nee nañu nag ñu ci bëree bëri daal nee nañu nañ ko topp ci rapport Prodac boobee ndax kat suñu milliards yi nga xamante ne si jël na ko daal mu génnee ko nu mu gën a gaawee moom mi nga xamante ne si kon moo di Mame Mbaye Niang ginnaaw bi nga xamante ne si nag kii di jëwriñu Ilimaan ni Ousmane Sonko waxoon waxoon na ni eh, am na ay firnde yu wóor yoo xamante ne si nag leer na ko dene bu ñu demee projet nag dana ko gagné waaye nag ñu tegoon seen tànk tegoon seen conca eh, bañ de wax nag ba tey ji nag kon rapport yooyu di génn kon daal Mame Mbaye Niang mi eh, jàpp nañ ne daal kon dana am problème bu rëy rëy bu sàgganul ci milliar yooyu nga xamante ne si kon ñu ngi ko koy tuumaale waaye rawatina ñaari wax yi nga xamante ne si kon waxoon na ko nag ci rapport yooyu nga xamante ne si kon am na ci boobee la moom mi nga xamante ne si kon moo di Mame Mbaye ca yoon bis bi ñu ko convoqué jàpp kon ci li nga xamante ne si kon moo di ah, boobee la mbir jëm ca mbirum ah, Prodac ah, boobee ak ki nga xamante ne si kon du ko fàtte di Pape Malick Ndour moom it nag bokk na ci ki nga xamante ne si ñi nga xamante ne si kon lii di rapport bi kon moom it téye na ko ni ki tey jii kon bi ñu ko xëyee fësal nag ci réseaux yëpp nag réseaux yooyu kon fépp nag ci àddina nag ñëpp nag teg ci seen i gët di ñaar ñooñee Pape Malick ak ki nga xamante ne si kon moo di Mame Mbaye Niang tëjee ko ak li nga xamante ne si moo di combat Sa Thiès bi nga xamante ne si nag moo la war a sëgg bëreel ak ki nga xamante ne si moo di euh, Eumeu Sène gum loolu nag war a doon euh, dimanche nag war a tombeek li nga xamante ne si moo di juróomi fan euh, ci weeru mai mu mel ne kon nag daal wax jaa ma ngay bëgg a bëri nag seen diggante nag danaa la duma danaa la daan takar naase lool diggante nag boobe nag ki nag nga xam ne moo di Eumeu si daal nee na ay supporter am daal nañu dalal seen xel te nga xam ne nag lépp loo xamante ne si war na ko ci combat bi rek dana ko def ne moo di Sa daal dana xam ne kon du ma ni ma mënee magam kon noonu laa ko magee waaye nag ki nga xam ne moo di Sa daal nee euh, xam ne kon li mu entraîné daal dana ko génnee ci kaw euh, ko daal ne euh, a moom la ñu dëkkmal kon yéen ñi nga xamante ne si yéen ñuy topp suñu site bi di Buzz SN ni leen koy faral di waxee bu na fàtte partager te de abonné dana yokk doole pass bi waaye dana tax lépp loo xamante ne si am na ci ak bitim réew ngeen mën cee jot